Cheikh Abdoulou trésorier euh, ADAT euh, mooy fas yéene wax ak ci li nga xam ne moo ñu tax a daje fii tey ñu daje def jàkkaarloo ak réew mi ngir man leen a xamal jafe-jafe yi nga xam ni ñun département Mbacké fii mën naa ni Sénégal la sax ñi koy am ak liggéey bi nga xam ne moom la ñu nekkee moom lañ leen bëgg a leeral ñu mën ci xam lépp li nga xam ne moo ci nekk loolu nag tey tax na ba association yi nga xam ne ñoo nekk fii ci département bi yëpp daje nañu fi euh, ñu fas yéene koo leeral bi ci njëkk euh, bokk na ci euh, lépp loo xam ni bokk na ci wàllu Euh, jaay mi nga xam ni moom lañ ñuy jaay euh, ginaar yi ak euh, lépp lu jëm ci wàllu liñ koy defee muy aliment bi nga xam ne moom la ñu yor yokkute bi ku ne xam ne ne métti na loo xam ne mi ngi doon jar daanaka ay 14000 tey mu dem ba ci ay 22000 wala 25000 poussin yi nga xam ne ñu ngi ko doon jënd di ko jëndee 25000 mu dem ba ci ay 32000 loolu ku ne xam na ni yokk boobu métti na mooy li nga xam ne mooy yoonu ñaareel bi. beneen bi ci des mooy ku ne xam na ni eh, yar ni mu méttee ak ni nga xam ne noonu la defee ñoom it ñu wëlbatiku ñi ñu koy jox di walbatiku di yaraat bokk ak ñun filière bi nga xam ne ñooy wàccaat ci suuf di ko jaay loolu it bokk na ci jafe-jafe bi nga xam ne moom la ñu gën a am ci jamono yi muy lu am solo loo xam ne parce que nit ki mënoo ko jox li nga ko jox baaxul yow nga récupérer li nga xam ne moo ci nekk yow di ko defal sa bopp di ci jaay lu baax li nga xam ne tànn nga ko mu doon lu bon nga yóbbu ko ci biti tasaare ko pour jox ko ñi nga xam ne ñooñu ngay liggéeyandool loolu itam euh, bokk na ci loo xam ne luy rey filière bi la. kon loolu la ñuy leeral sénégalais yi leeral ko état bi nga xam ne moom moo fi nekk mu taxawuñu jàppale ñu parce que boo xoolee lu mel noonu filière bi ñi ci nekk ñëpp ku ne xam na ne ci suuf ba ci kaw ñi ñi ci nekk bari nañu. waaye lu mel nii suñu xoolee ak quatre vingt ma ciy joxe rek anecdote en quatre vingt dix huit lu mel ni pays italien amoon na jamono yoo xam ne ku ne xam na ni dañu defoon robotique nga xam ne moom moo nekkoon état bi fi nekk yëpp euh, usine yëpp kenn ku ne amoon na cinq pour cent yoo xam ne lépp robotique la mais PAP bi ci boppam moo ñaan population bi ak état bi wax leen ne leen nañ ko wàññi parce que ñi ci suuf amuñu liggéey kon koy ñaanaat état bi di ko ñaan suñu xalifa généraux yi ne ko ndaw ñi amuñu liggéey te fii lañ ko yaakaare woon te yu mel nii lu mel ni tey état taxawaay bi mu taxaw fab ay 80 000 di ko envoyé ci portable yi tey jii ñooñu tey taxaw waroon na ñu a ñëw lii bu fekkoon ne liggéey bi jaar na fi a xam ne ñooy liggéey liggéey bu am solo bi ñuy liggéey kon loolee du leen ci fekk te fii moo ëppoon solo ñi ngi leen di ñaan daal état bi ñu wax ni danañ fas yéene ñii nga xam ne ñoom lañ ko jàkkaar lool boy boycotté lii ñu ñuy jox baaxul parce que mënuñ cee liggéey di ci gis suñ bopp population bi mënuñ ci am xëy loolu ñun danañ boycotté ba jëmmi jamono yi nga xam ne moom lañ ko moom la moom la ñu soxla li ñu soxla dañ ñuy wax nag état ne ko moom lañ ci yaakaar parce que ay doomu réewam la te moom ñoom la war a dimbali kon ñi ngi leen di xaar ci loolu ñi leen di jéggul nag te leen baax lii moo waraloon suñu daje tey bi na ko ñëpp yóbbaale te ñu fas yéene woo ñi nga xam ne ñoo nekk ci région yeneen yi ci des ñun ñëpp ñu àndandoo xeex lii ba lépp ñu mën ko def ndax ku ne xam ne ne bi ñu ñëwee ñoom laaj ñu ñu ñëwuñu ci jamono yi ñu boycotté ñoom luñ ci perte rek ñoom danañ ci perte lu ko ëpp mm. waaye fii ak ñu koy teg ñu di ko nangu duñ ko mos a bàyyi mukk nii lañ koy jiitle ak ñun waaye nag ñun fi nekk nii lànk nañ ko te fii lañ taxaw te dootuñ ci deltu gannaaw man la Abdou Aziz Ndiaye maay vice président ADAT ñu ñëw ci point de presse bii nga xamante ni bii ñu ngi ko doon def ñu ngi koy def nii li tax dëgg dëgg di ko def mooy liggéey bii nga xamante ni bii dañu cee nekk te gisatuñ ci suñu bopp liggéey bi nag ñun taxawaay bi ñu ci am moo tax provendiers yi mën a dem bu fekkee ni ñoom rek la du ñu dem te ñoom teg nañ ñu coono boo xamante ni bii xamatuñu fu mu jóge xamatuñu fu mu jëm loolu nag tax na ñu ngi woo képp koo xamante ni bii yaa ngi si filière bi nga nekk ci biir Sénégal ñu àndandoo boycotté bàyyi liggéey bi yëpp ñu teg ko ci suuf ndax ñun lu ñu ci perte rek ñoom perte nañ lu ko ëpp bu ñu taxawee waaye bu ñu taxawul ñun ñooy perte ñoom ñuy avancé toujours toujours te milliards yooyu ñuy gañe ci suñu ndodd la ñu koy gañee loolu nag kon war nañ cee am taxawaay bu matale ñu ngi woodaal képp koo xamante ni bi yaa ngi ci filière bi nga nekk euh, fu mu mënta doon ci Sénégal nga am ci taxawaay ñu arrêté jusqu'à nouvelle ordre suñ demee ba ñoom ñu mën a toog ak ñun wax ak ñun mën ñoo seet liggéey bi ñu mën koo teg ci yoon mu nekk partenaire gagnant gaña bu boobaa ñu mën a ànd ak ñoom liggéey loolu la ñuy ñaan ñi nga xamante ni bii ñoo ngi ci filière bi yëpp yëpp yëpp di sant di gërëm ñi nga xam ne teew nañ tey jii si tàmbali bi ndax association bu nekk ci diggante Mbàkke Bawol ak euh, Touba ak Njaareem yónnee nga fi ndaw tey jii ñu àndandoo taxaw ni tàmbali nañ ko fii ci Touba ak Mbàkke région de Diourbel waaye dañu bëgg mu yaatu ba ci national bi lépp lépp incha allah rabbi euh, ministre de l'élevage ak képp koo xamante ni bii yow yaay jiite loo jëm ci wàllu élevage muy directeur bi nekk euh, département Mbacké région de Diourbel ak directeur général de l'élevage ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ngir ñu ñëw jàppale ñu ci lii ndax lii kat du loo xamante ni bii ci ñun rek la impacté waaye ñi nga xamante ni bii ñoom ñoo nekk ci suuf di liggéey ci liggéey bi ak ñiy jëfandikoo ginaar ñoo gën a sonn ñëpp fi ne nii loolu nag am na ci benn point boo xam ne ñun remarqué nañ ko bu baax mooy ni ren jii boo seetloo màggal yëpp nit ñi dañoo mujj di daw ci àll bi di wuti xar di wuti nag ndax ginaar mënta am ni ñu ko bëggee te ku nekk xam na ni ginaar moo gën a tedd ci teraang moo gën a matale loolu. ñu ngi doon wax ne xëy na dañuy daggate ginaar yi di ko peese par kilo loolu euh, jaakaaru leen woon ne xëy na moo doon gën yomb ci yéen wala nu mu nu demee waa loolu moo gën a yomb ci ñun waaye yombu yombu boobu bala muy mën a ñëw mooy fekk na cuuj bi yomb aliment bi yomb ba ñu mën a am ginaar gi loo amul mënoo koo paqueté mënoo koo daggati il faut da nga koy am ba noppi te instant bi dañu koo mënatul a am liñ ñuy jox lu bon la ñun ñii ñëpp taxaw fii ku nekk dugaloon nga ginaaru korité korité gi léegi mu am un mois ku nekk say ginaar mi ngi ci sa poulailler nga xamante ni bii yar nga ko deux mois ferme léegi nag loo waroon yar si cinq jours nga yar ko 2 mois perte nga pertement bu métti. est que yéen a ngi dox ay jéego ngir seen autonomisation tamit. waaw loolu aussi ñoo ngi siy jox ay jéego yu yaatu parce que daf nañ ay séminaire daf nañu itam ay xeetu taxawaay yoo xamante ni mi ngi jëm ci aliment poussin itam ñoo ngi ci jéem ay pexe waaye loolu yëpp état bi daf ñoo dafa am foo xamante ni daf ñoo délaissé jàppalewuñu taxawuñu. bind nañ ko bind nañ suñuy projet man en personne maa ko yóbbu ba ministère kenn yóbbu ko man maa ko yóbbul sama bopp ba ministère teg ko ci ay loxo yu wér waaye loolu rek def na déjà huit à neuf mois yoo xam ni kenn tontu wuñu ci ba tey jii nii nii nii. leen di jox euh, xaalis bu bare duñ ñu lebal amul dara dañuy fay une semaine à l'avance parce que man maay yóbbu seki am na ay couvoir yoo xam ne. actuellement si deux mois d'après nos comptes def nañu presque plus de vingt cinq millions yoo xam ne jox nañ leen ko donc dañuy jox ay poussins poussins yi ñuy jox du ñu baax un du ñu calibré parce que un poussin normalement quarante deux grammes la war a def ñun bu ñu jëlee suñu poussin ñu décor deg ñu xool ko xool dinañu xam ne leen mat ko ñaar bu ñu ko joxee tamit dañ ci am ay difficultés difficultés yi ñuy am mooy da ngay commandé cinq mille nga fay sa xaalis ba pare mais du ñu ñëw dañ lay bu ñu lay jox dañ lay jox 2000 lañ lay jox wala 2500 lañ lay jox léegi da ngay am problème ak yeneen yi nga xam ne yow ñoom nga jëloon seen xaalis donc loolu tamit c'est à déplorer parce que nit ki bu fekkee ne da nga signé moom un contrat da ko war a respecter su fekkee ne da nekk ak moom tamit dafa war a nekk un partenariat vis-à-vis boo xamee ne dafa war a nekk gagnant gagnant te ñun dañuy liggéey te ñoom ñoom il gagne mais ñun ñuy perte ñaar. poussins yi ñu jox jox nañ ñu fii fan yi benn lot boo xam ne ça presque six mille poussins mais mën naa la ne quatre mille cinq cent poussins yëpp dee nañ mu ngi nii sama téléphone dama dugg yëpp ils sont lii problème bi mooy joxuñ ñu poussin boo xam ne poussin de qualité la ay maanaam dañu jox ay poussins yoo xam ne ay prématuré la wala ñu nekk ay chétif ay poussins yoo xam ne buñ la ko joxee ba pare jox la aliment boo xam ne reconditionnement wu aliment la. parce que man j'en ai des des sources sûres que aliment dafa war a am un temps déterminant un temps boo xam ne bu ko defee pour poussin bi war ko lekk trois mois su ko dépassé aliment bi baaxatu mais léegi dañ lay jox aliment boo xam ne dañ ko dencan en stock yàqu na si ñoom ñu reconditionné ko jox ñu ko parce que léegi un aliment bi ñuy wax démarrage da ngay ñëw léegi da nga ciy gis si biir démarrage bi da nga ciy gis finition da nga ciy gis tamit croissance donc loolu déjà dafay indi ay contusion yoo xam ne day indi ci poussin bi da koy indil contusion parce que day dagg day orne yi fii day dagg xotti yi biir bi tamit maanaam li nga xam ne moo nekk si biir bi muy muy raakool yi nga xam ni fa jaar moo tax bu ñu bu ñu defee déchet muy drétal looloo tax ñun ñuy fexe di leen di jox ay anticox pour sauver nos poussins looloo tax ñuy def loolu mais ñun joxuñu aliment bu baax joxuñu ñu poussin bu baax donc loolu. c'est à déplorer le gouvernement sénégalais nag moom moo ñu ëmb ñun on parle directement avec le chef de l'État c'est le président de tous les sénégalais nous sommes pas à Mbacké wala nu sommes pas à Touba nous sommes pas à Dakar rek duñu bokkuñu fi dañu bokk fii parce que développement Sénégal maanaam ñi nekk ci région yi ñoo koy développer ñooy defar dëkk bi ñu nekk dakaar ñi ngi foofu am nañu moyen mais ñun ñi ñi ngi ci tool yi ñaanu ñu saraxuñu léegi dégg nga benn soxna soxoon mu ngi doon wax ne su ma amee sama 2000 francs man am na ku ñëw ne ma jaay ma 5 pour cent parce que ma ñaani su jëlee 5 pour cent yooyu yar ko lu mu ci am lu mu dugalaat ci biir këram xam nga ne 5 pour cent mënul def dara mais danga koy jaay 5 pour cent parce que dafa bëggal boppam autonomie bëggël na boppam baña a tàllal loxoom di ñaan kon gouvernement bi nag gestu ñu nekk ci suuf. na Macky Sall taxaw xam ne ne ay sénégalais ngi sonn te dañu bëgg liggéey te investissement lourd la parce que ñun kenn joxuñu dara ñun ñoo génnee lépp suñu bopp léegi mi ngi wax avec cinq benn benn carton de cinquante pour cent je te dis son budget c'est cent dix mille francs c'est pas à la portée de tout le monde quand tu cinq cent pour cent cinq cent pour cent il te faut presque un million cent cinquante mille donc loolu nit ku nekk mënu ko am mais bu ñu demee ba nga xamee ne am na ñoo xamee ne góorgóorlu nañu ba am seen liggéey di ko liggéey employé de ou trois personnes ba pare nga ñëw bëgg leen xañ loolu ay provendier ay industriel ñëw bëgg dugg si marché bi xeex ak ñoom encore di jaay ay pousse di jaay ay ginaar yoo xam ne xamuñu ginaar yi fu ñu jóge xamuñu ginaar yi nu mu demee te ñun suñuy ginaar ñoo koy yar ci yar bu simple bu sell bu baax parce que dañuy joxe même garab yi sax dañuy wax gaa yi garab yi nga xam ne dañu am ay délai d'attente il faut pas que ñu rey ginaar te joxuñu kon loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la kon nag ñi ngi interpellé waat suñu kilifa yi nga xam ne tey jii suñu kilifa gii jiitañu seen Cheikh Abdoulaye moom nga xam ne lépp lu muy def tey moo ñu ciy jiitu ndax moom kilifa la maam Serigne la waaye moo ñuy jiitu ci lépp. lu ñuy def ñu def ko soxna si moom mooy soxna si nga xamee ne moom moo jiite mbooloo mi te tamit soxna su man góor la mi ngi ci def di ci waar di ci bàyyi bàyyi bàyyi waaram ànd ak moroomu soxnaam yëpp nag ak suñu vice président sëñ Abdoulaye Ndiaye c'est le secretaire général kon il fallait que ñu présenter leen les la ngeen xam ne ñun dañuy liggéey. te suñu liggéey bi tamit dañu bëgg aviculteurs yi nekk Touba Mbacké Ngaabu Diourbel région de Diourbel ba Bambey ñëpp ñu ñëw ñu affilier ñu def benn fédération ba nga xamee ne lépp loo xam ne bëgg nañ ko dinañ ko mën a doxal parce que am nañu xel am nañu xalaat am nañu projet boo xam ne ni mën nañu contre contrecarrer gars yi li ñuy def te kooku bu ñu gouvernement bi jàppalee rek dinañ ko def ñi ngi ñaan tamit di jiital ci ñaan gi sax sëñ euh, suñu kilifa suñu lépp sëñ taxaa di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te te lépp loo xam ne moom la naal bëgg ko liggéeyal maamam ak waajuram mu tàmbalee ko ci bisimilahi rahmaani rahim eggale ko ak alhamdulilahi rabbil alamin ba nga xamee ne tey jii ñoom it ñu ngi koy ñaan mu ñaan gamuñu ñaanaloon keroog bañ fa demee ñaan googu dañu bëgg dellu si mu ñaanalaat ñu ba bunt yi ñu mën a tàmbali suñu liggéey bi nga xamee ne mooy suñu projet yi ñu bëgg dem